seetlu ma ngay lànk di ngawti ngawtee ngir di ko wutee Ba moom la mu bëgg jamono ji nag mooy ñu daal di invalider candidat yu waa Pastef la séglekaay nag di déglu ba nëgëni si nag juróom-ñaari sages yi nga xam ne daal ñoom ñooy valider mbaa ñu invalider nag lu jëm ci mbirum candidat yi nga xam ne rek dañoo amal ay recours jamono joojee nag ñuy wax ci validation bu candidat bi di Karim Meïssa Wade l'observateur dippeekoo Karim Imparfait leeral yi nga xam ne rek moo tukkee ci ñàkkub nationalité française am dossier bi nga xam ne rek moo jëm ci wàllu candidature am ak délai de dépôt yi nag loolee lépp yëglekaay bi dellu siwaat na ci Le Quotidien daal di koy feelu moom it bind même titre nag daal di xamle ne nag Gabriel Attal officialisé na ko fukki fan ak juróom benn ci weeru janvier conseil constitutionnel jot nañu déclaration bi ci weeru décembre moom mi nga xam ne rek Thierno Alassane Sall moo ko attaqué Karim Meïssa Wade nag moom la ñëpp di ping jamono ji nag yëglekaay xëy fësal ko ci xëtam bu njëkk dellu siwaat ci xaay bi ñu nemmeeku ngir mën a tàqalikoo ak nationalité française am mu ni Russie di ab constitutionnaliste nag di xam ne ni conseil bi nag nekkul ci logique vérification coup pour coup bés bi le jour daal di koy fësal ci xëtam bu njëkk jëm ci nationalité bu Karim Meïssa Wade réclamation yi nga xam ne rek Amadou Ba mu ngi koy amal jëmale ko ci Diomaye Faye ak Cheikh Tidiane Dièye fekk waa Paris nag ña ngay officialiser lu jëm ci Karim Meïssa Wade ak nationalité française bi ñu ne da koo amee mu di ab déclaration buy siggil Karim Meïssa Wade moom doomi Abdoulaye Wade ji ma ngay dal ci kaw Thierno Alassane Sall ba noppi jàppee Amadou Ba ab spécialiste des coups bas Thierno Alassane sal di xam ne ni nag lii rek war naa tax ñu daal di écarter kii di doomi Abdoulaye Wade ji ci bokkam ci élection yi keneen ku bëgg ñu écarter ay candidat bokk na ci candidat Benno Bokk Yaakaar bi bu di Amadou Ba ñeenti argument nag la teg ci ndoddu plan B bu Ousmane Sonko jamono joojee Le Soleil nag yëglekaay daal di dellu siwaat nag ci liggéey ñu war a amal ci wàllu Ageroute bi nag ci région bu Dakar yéenekaay bi ne fukki projet ak juróom benn yu ñu fas yéenee dugal juróom-ñaari milliards ci suñu xaalis les éco yëglekaay taxaw nag ci jamono ji ñeel wàccaay bi nga xam ne rek moo jëm ci match Sénégal Cameroun yéenekaay bi ne tension bi moom foo ko natt weesu na ko ndax ñàkkum billet yi nga xam ne rek moo jaaxal ñu bëree bëri sous préfecture bu yàkkuroo nag supporters yi ñoo fa dem fees fa dell nag di laaj billet yi yëf yi nag doon loo xam ne merloo na ivoirien yi ba ñu futtu équipe bu nag moo xam muy journaliste wala ancien lion ñoom ñëpp ña ngay dal foofee ci kaan ba ñuy amalee ca Côte d'Ivoire yéenekaay bi di dellu si nag ci li nga xam ne moom la El Hadj Ousseynou Diouf xalaat jëm ci Lamine Camara kaan boobee nag ak stade yëglekaay miy dellu siwaat ci jongante bi war a dox ci diggante Sénégal ak Cameroun vendredi bii lay doon mu di nag ñaareelu match sub jongante bu waa Sénégal war a amal ñu wax ci wàllu làmb ji nag ak boo Bordeaux Boy Niang beneen grand contre petit yéenekaay bi ne bi le combat nag jamono ji bokk na ci bi ñuy laam-laamee boobaak léegi mbokk yi li yëg a fas yëglekaay jàmm ak jàmm Société